bëgg ku ne ni la sama waay nga tax ku ne nga bëgg ni danga koy satisfaire mais ku bëgg a jàppandoo jaar yu bari mbootul jaar yëpp rëccandoo nit ku ne dangay xam cause bi nga xaj ak bi nga war a yëngu sa ruux a koy yëg bu jaxasee ba nekk nag jeex na bokk ci cause fonk ko doo ko wecceeg dara n'a rien à ak leneen loo gis boo ko waree ormal ormal ko moo tax nag ku bëgg a jàppandoo jaar yu bari boo watuwul jaar yëpp rëcc la ce aussi programme yu bari ku ko bëgg defandoo yëpp boo watul programme yi benn du ci sotti mais nag sans dépense parce que baatu ordre bu dee ci côté ñi nga xam ni ñoo tuddee al ak bu dee nekkee ci al xaqiqiyin du bokk li sëñ Cheikh di wax ni bu jëkkoon yàlla moo lay may ton da ngay dindi li nga ragal ba noppi soog a jublu ci li ngay defaree mu ni mais léegi bu temps amul nag dangay ngay obligé boole di dàq li nga ragal ak di yóotu li nga li nga li nga yaakaar waaw lu ci nekk ci temps bi la bu ñetteel bi nag mooy ma la yufaalu kulluhu la yutraku kulluhu doone rek lii mënuma koo matale lépp kon naa ko bàyyi ci suuf déedéet mënuloo koo matale lépp mais tàmbali foo ca mën a yem seet keneen ku la ëppale mu mottali mais bul ni mënuma koo mattale rek may dama koy bàyyi teg ci suuf déedéet tàmbali rek foo ca mën a yem yàlla moom mën naa def bala ngay jeexal keneen ku mën a mottali ñoo fekk la ko bi ci des itam moo di ci wàllu tërëlin gis nga kilifa baal leen ma dama xaw a am tuuti wànnent dana am nu muy santane mana bat bi yàlla wax ci alquran inna allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan yuqatiluna fi sabilihi saffan yàlla nee na ma bëgg jaam yi nga xam ni lu ñuy def dañ koy defandoo loolu rek la jublu ci safan ji buñ koy def dañ koy defandoo mais gis nga baatu def defandoo buñ ko ak ci ligne nañ ko ak ci résultat xamuloon ni léeg-léeg nga dem ci jàkk julli jot ñu li xaam nga déggee ku ni jàkkal leen sàppe yi ku ne di xoolaat sa morom xool tànk yi ku ne di dendale or ka dendale tànk yi ci biir saf bi dafa am lu ko yàlla gën a soxlaa mooy dendale xol yi ndax nit a nga dend ak nit ci biir julli te xolam nanguwu ko ki nga nanguwul ci sa xol nag dendaleeg moom ay tànk mu tegu ci ligne lan lay servir ak moo tax toujours bu yàlla waxee dara bu ñu jël façade bi yuqaatiluuna fi sabilihi saffan saff bi du façade bi mais li ci biir moo ko intéressé moo tax itam ba ci am sa kilifa xër xër di nga ci gis ñu bari léeg-léeg di ko soow ci ñun sunu niveau parce que léeg-léeg coow li bari ci ah, xale yi nangam waaw ñoom day faalewuñu kenn nangam nangam parce que yenn mag ñi dañuy wut ay nit yéen loolu ngeen xamul yenn mag ñi leen di akkawliku dañ leen di wut mooy baat bi ma wax ci jël sa diine di ko wër di ko neexale nit ñi kiy wut nit ñi nag foog mu neexal nit ñi mais ki gëm ni moom ak nit ñi yépp ay jaamu yàlla lañ kooku foog mu teey gis nga li ngeen di defe ni bañ la du bañ teey la teey ndax ki nga amal affaire laqad jaakum rasulun min anfusikum la ilaha illa allah lan moo ca tepp mais denc leen ko ñëwagul wàllu ibaara yàlla rafetal noonu mais ñëwagul rasulum min anfusikum wallaay moog yéen a bokk lépp ci yéen la jóge xarisun aleykum wallaay ndeysaan ku leen faale la mën nga koy fii xarisun aleykum bi lay ku leen faale la waxuma leen yéen sax waaye bil muminina raufun rahim bi lay ndeysaan yërëm na ñëpp ñeewante na ñëpp waaye nag azizun alayhi ma anittum waaye lu diis la ci moom yenn nag yi ngeen di defe ndax du xaj ci moom ndax gëm gi mu gëm ni moo yéen yépp jaamu yàlla ngeen et pourtant lan moy indi aaya bi lutul dul yonent bi ñew jëm si ci sahaba yi ñepp jog pour di ko liko pour nuyu ko mu taxaw bañu ñu si nit ñi mu ni tok len tok len bu ngeen togul duma ñew nit ñi nak di discuter ak mom ay ba wacc ko gis ngeen ki ci yeen la bok hadithun alaykum ilay ku وهم لن فعلن لن يواي بالمؤمنين رؤوف الرحيم فجل لدن صبنا لا نيوانتنا لا وينك عزيز عليه ما عنيتم بيسنا كي موم بيسنا كي موم دا كو خم بروم لا مولاي خمال نيكم لي ادب الخدمه اعز من الخدمه نفسها سيرفير نيت نحن mais xam façon ba nga koy servir ku nekk ak la mu àttan loolu tax <laughs> am na baat maanaam ñu quelques minutes incha pour ñu gàttal ko ba yeggale fële incha xam nga ñun dañu miin baatu l'homme l'homme propose mais Dieu dispose ñun loolu lañu lañu ñu jàng mais alquran li mu gëm mooy yàlla yàlla c'est lui moom mooy proposer et en même temps mooy disposer bu dee pour jullit laa wax mais nag fee lom ngeen wax comme lom ngeen wax xëy na lom dafa libre moo tax lom propose jën nag dispose mais bu dee ci diine déedéet yàllay proposé yàllay disposé moo indi ñaari baatu istafa moo indi ñaari baatu istafa إن الله اصطفى لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال لكتكو قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم القرآن كان خمول لنا من ورنا مني دنجن ياري يعني استفاي مباد بلين زير جلي ولنكو باستفا لكم بمجب استفاه عليكم moo tax istafa lakum proposition la dañu bëgg buur bu leen yoreel seen réew yàlla ne naan inna allaha istafa lakum malikan yàlla proposé leen ni leen jël leen taaluuta mu nekk seen buur من خواسيسه أن يكون له الملك علينا مو تعالوا تمي كيف مي نكي بوركي سنو بير ده يؤت سعة من المال دون العلل أمون لي موين ñu di ko accepter comme buur comme il le proposé na ñu rejeté bi yoon propose proposé dafay disposer. nous inna Allah astafahu alaykum. bañ bañ bëgg bañ bañ bëgg dama rek di ndax avons comme nous بيون دوما لين بروبوزي داما لين كوي امبوزي ني ديم كاو ديكو سوب يالا ديف كو لام كوي ديف وزاده بسطه في العلم والجسم متخ امنا بات بولين دول فيري دونو ديم باتو تحكيم باتو حصانة أك باتوا قد أسى أك العصمة أك العصمة الحصانة أك العصمة أك القداسة التحكيم اللي يوتو ديكي توباك pouvoir discrétionnaire nga xamni da fay may nit bu ko ko yàlla joxe bu ko ko yàlla joxe la waxuma yi ñuy tek ci ay texte ñetti xéti tahkim yi yépp dana ko sañ التحكيم الاختياري التحكيم الإجباري التحكيم الالزامي منا تحكيم شانرو اربيتراج لا اربيتراج نك داف سي ام بوغا خامني اختياري لي منا

représenté wul ñom ci walu supériorité lu mu représenté bu boobaa décision c'est volontaire moy li dal yonent ci bi ci wadul wadool al aswad maanaam bi ñu demee bay defaraat kaaba ga ci jamono ci bi boobu ci bi sax yalla yónneegu ko ñu defaraat kaaba gi tabaxaat ko ba yépp pare ñu war a delloo xajarul aswad ci place am léegi nag ñoom ñi nga xam ne ñooy dignitaires yi nekkoon Makka mu indi coow lu day ni ñay kenn ku nekk nag ni sa morom du teg xeer wi bàyyi la parce que pour ñoom question d'honneur la donc xëccoo ba xëccoo ba ñii naan ñii nañ ko teg ñi coow li bari am ku jékki-jékki ni waaw léegi comme ñun ñu ngi soowoo te mu ngi bëgg jur xeex te ñun lu baax lañu ñu bëggoon ma taxoon ñu doon defaraat kaaba bi pour teg xajaral aswad rek mu bëgg indi coow léegi nañ d'accord ci dara comme ñun mënuñu àtte suñu bopp nañu nangu ku njëkk ñëw ku njëkk ñëw rek ñu doyloo ñun ñëpp ni ko àtte ñu te lu mu ñu àtte ñu wëcc ñu ne d'accord kon d'accord nañ ci boobu proposition nga yàlla mom moy moy manipuler yu bare affaire am la mu fexe ba yonent bi mo ñëk ni tel ñu na ah faf nag as-sadiqul amin ah ki mom duñu werante ci mom mo tax foofu yonent bi tahkim bi tahkim ikhtiyari la booba nekkagul yonent ay nit rek ñoo décidé ni ku njëkk ñëw yàlla def na mu njëkk ñëw waaye mu ñëw ñu ne afar ah, as-sadiqul amin atte ñu yàlla ci xel mu rafet mi mu ko may xam ne nit ñi loo def àdduna tukki mais yàlla may ko xel mu rafet mu daal di jël kaalaam daal di koy lal jëlal boppam xajar bi teg ci kaw kaala gi ndax ni léegi dignitaire yëpp kenn ku ci nekk jàppal ci benn laf ci la kaar la gi mag yëpp ñu wër kaale gi ku ne jàpp ci la mu ne ay ca ñoo ànd ak moom ba ca place ba moo ko yëkkatiwaatal boppam teg fa ku ne ah. gis nga yàlla mooy yéeme comme ñoom ay mushrikiina lañ bëggul ñu laal xajar bi laal nañu morso bi mais laaluñu xajar bi yeneen bi ci loxom yu tedd yi moo yëkkati teg moo yëkkati tegaat ah kon foofu dafa trancher une différence bo am ci diggante ay nit taxkiim bi bu fekkee ne dafay tranché c'est volontaire mais bu dee Tahkim ijbaari yi la bu boobaa statuer conformément à la loi Koko moy bi dox digentem ak nasara najran keroog bi ñu ñëw rek bëgg def tapage il délégation une très forte délégation Nous sommes tous ay Nous sommes pour impressionner yonent bi ak yi ñëw défier Nous sommes tous les li ñu indi mooy ñuy discuter yow affaire waaye mu ni les mu Nous ñun ñun dañu ni Isa que yàlla te yow ci sa nga wax ni Isa loolu lañu ñu bëgg a discuter mu ni leen mais loolu kat moom jarul woon ñëw parce que lu ma ci soppi amul isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ila maryam jaamu yàlla yonentam la yàlla nag moo jël kàddoon def ko ci maryam rek mu judd comme nim ko defee ci aadama defe ko feneen kii jarul guddal ñu ne ko nag ñun boobu duñ ci marché isa ibnu allah almasih ibnu allah mais ça y est c'est fini masla jeex na boobu léegi dafay statuer conformément à la loi fa in xaajuuka nag léegi fii fa qul taalaw nadcu abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين jeex na am na loo xam ne jaratul werante wu gudd comme ñii nee nañu lii la yow nee nga lii la waatoo mais bi yonent bi tuddoo waat ni ngeen dugal ci waat bi seeni doom ak seeni jabar ak ku ngeen am ma dugal sama doom Fatima maa ngi nii ak samay soxnaak jullit yépp ma dugal leen ñu waat ñu fëx